puisque les états n'ont pas d'amis que des intérêts xam nga xam nga lu am ba des yaakaar ne France mooy développer Sénégal parce que comprendre président France Macron ak Philippe Université Édouard mm-hmm. Philippe Édouard Philippe mm-hmm. fu ñu fanaan yend fa toog fa intérêt France nekk ñu parce que France moo leen fal ay français lañu France lañu xam hmm. bu leen leeroon ni bu ñu jëlee lii Sénégal yëpp dee pour suba France nekk première mondiale bi est bu ñu koy hmm. faut ñu déjà ñun Sénégal yëpp ñu nangu lool d'accord y compris nos gouvernants li mooy ñun suñu biir ñu ñëw xool li ñuy négocier hmm. xam nga Pape Diouf Fall dafa wax léegi mi ku jàpp nit jël ko jaay ko fekk ay nit ñi nga xam ne seen héros ñu rey leen sori loolu sax bari sori na après l'indépendance ñaata intellectuel lay rey fii lañ rey ci réew mi te pourtant ñooñu ñooy financé ay société civile ñuy xeex droit de l'homme loi boo jël xam nga lañ la lañ njëkk a créé dañuy créé ba démocratie la ñu yàq. mais ñenn ñooy financé fi société civile. ñi ngeen di wax. ñan il faut mu leer quand même. PAM. waaw non non mënoo jël suñu société civile bi aussi nga. foofu ñëpp laay wax man. non non non. kaa booba dëgguma la. non non parce que boo nee boo nee ñoom ñooy financé société civile bi. man damay jàpp ni société civile bi nga jël def ko ci benn. non non day leer non dafay dama. d'accord ci loolu quand même. man d'accord parce que civil bi ah. mais dafay continuer. Hmm. dama son point de vue lay doxal. Hmm. waaw mais am na yoo xam ne soo ko waxee aussi. waaw mais yow sax na nga gëm toi mais man li ma wax bu dee sa temps wax li nga gëm. li ma wax te mënut a tere dara lan neex ni xalaat ko. li ma xalaat laay wax. waaw ah, mais bu ñu d' si aussi dañu naan d' accord. ah bien sûr. waaw man d' mais waxal ba demee d' accord li xam nga lan mooy wax ji. mooy ñun Sénégalais yi ñun ñëpp ñoo war gëm réew gëm suñu réew. xam ne ñun ñoo war tabax suñu réew. dafa yomb tax wax ca kaw lëkkaloo ñëw ci suuf loolu fi bari. débat bu honnête bu sincère moo amul. man li may wax il faut li may wax Sénégal bi may déglu ci rajo xam na li may wax ñëpp xam na li may wax pour mu mën a dañ du du ministre du gouvernement du opposition du société civile ñëpp a war a ànd journaliste yi ñëpp ci war a ànd. ñu am benn sens patriotique boo xam ne gëm suñu réew d'abord ni comme ni ni américains yi réussir réussir ñoom liir mission du ñu sax gëm na ni Amérique gën ci adduna bi intérêt Amérique moo gën sama intérêt bopp tant que egguñu foofu di nga saaga France bu France jeexoon chinois ñoo tibb li nekk. oui indien ñoo tibb li fi nekk. c'est keneen tibb li fi nekk c'est pas un problème de pays problème de nangam c'est problème de de nation de patriotisme gëm suñu bopp c'est valable pour tout le monde c'est trop facile de dire que nos gouvernements nos gouvernants et notre opposition et nos journalistes et notre société civile c'est tout le monde c'est ça la euh, Guy Marius defe naa booba mujj na def ko conclusion pour tour de table bi ñu njëkk def ci kii bi mooy nañ dem ci pexe yi. pexe yi pexe yi mooy lan comme ñun ñëpp léegi mujj nañ d'accord ni suñu xarit bi. waaw mais a <laughs> été a été également interpellé. tu je ne fais pas de masla. oui si si si il euh, wax ci li mu ko laaj. man sa langage moom mi ko wax. Ah, non non bàyyi ma. wala da nga ko mën a wax assumé naa naa ko tënk ba émission jeex. ma wax je l'assume. moo tax man la musu am sama xel. wala wala li ma bëgg moom mu leeral. jëwuma damaa jàppale sama xel. c'est que buuba kay moo fi bëgg a def ay affaire. non dama ne man li ma wax damay jàppale ñu wax ko <laughs> buuba. Paa Mbaye Mbaxaan. tey tey buuba nga ko ji. c'est-à-dire su ma toogee ci plateau. ñaari Sénégal bi. non non j'ai le droit de. il n'y a pas de conflit. waaw mais non dama ne. je ne trouve pas dama ne malal. dama ne vous êtes en train de prendre son temps de parole. c'est-à-dire non bu ma ne dama ne li ma wax leer na. yow yaa ko bëgg a yóbbu ko ay malal yaa ko bëgg a yóbbu ko mënoo ma gën a xam ne c'est un débat. c'est un débat Birima ah Birima il faut reconnaître à Bouba il faut voilà je suis désolé il faut reconnaître une intelligence très fine à Bouba de ce point de vue. c'est-à-dire Non, une intelligence sociale, sociale non, est très fine. Non, je, ça, il non je, ne vous reconnais, je ne reconnais plus le plateau. à cause de toi. Abdou Abdoulaye wax ji ñuy waxtaanee. waaw dafa am solo. parce que xëy na am na nu ñu koy waxee. mën nañ jàpp ne on est aérien mais ñun saa bu ñu waxee on essaie d'être le plus pédagogique possible. 2017 euh, dafa amoon 22 575 xale de moins de 5 ans yu dee Sénégal ndax biir bu daw ndax ay sëkkër li ñu woowee infection respiratoire aiguë et cetera mm. c'est-à-dire tous les jours maanaam euh, tey balaay minuit dina am 61 enfants de moins de 5 ans yuy xam nga dañu naan violence faite aux femmes mais violence faite aux femmes mënul weesu lii pourquoi ah ndaxte amuñu sage yu doy amuñu infirmier yu doy amuñu euh, pédiatre yu doy ay région entières amuñu pédiatre nous avons au Sénégal un gap de 4000 sages-femmes li ñuy wax ni c'est pas aérien li ñuy wax ni mooy nekkinu askanu Sénégal bés bu nekk Sénégal am na juróom benn fukk jigéen yuy jooy am naxar di métitlu seen deewu xale de moins de cinq ans ndax lan je respecte la position de Birima je serai pas aussi violent que lui respecté naa gis-gisam ma ci mais mun naa ko comprendre parce que loolu mooy li Guirassy si doon wax sànq le Sénégal de certains et de l'étranger suñu président Macky Sall jiite sa coalition Benno Bokk Yaakaar bu cëralee boppam huit milliards de fonds politiques par an ñu am sage-femme yu doy en réalité Birima quand il me crie dessus c'est l'expression d'une haine de classe maanaam et foofu point boobu rek la d'accord ak Bouba mhm. addina bi et Sénégal ak Afrique mënul nekk exception mhm. day am le Sénégal digne et le Sénégalais mhm. le Sénégal indigne jamono jaam nañ ko waxte de même bu fekkee ñëpp ñu ngi si xulloo amoon na ay ay suñuy maam xëy na sax sama maam ci la bokkoon ñu doon jaay seen dëkkandoo am ñeneen ñu doon bañ ñu leen nott noot colonisation la même chose loolu moo am ba léegi et neexul ba neexul président Macky Sall Ouattara IBK ak ñoom seen dañoo bokk ci l'Afrique indigne je comprends la critique de Birima parce qu'en réalité boo duutee baaraam ça fait mal et lii bu ko askan wi déggee mais day métti parce que askan wi ma ne mais attends Macky Sall c'est parce que mu ngi créer ay institution budgétivore di jël 500 millions de fonds politiques di ko jox président assemblée national 500 millions de fonds politiques di ko jox HCCT HCCT boo xam ne tey jii nii boo woon lan lay wàññil est-ce que citoyen sénégalais dina sentir ne mais loolu moo tax amuñu sage-femme yu doy buuba 2019 juróom fukki at ak juróom-ñeent après indépendance téeméer boo jël ci doomu Sénégal juróom fukki ak ñeent mënuñu jàng abajada ils sont analphabètes nga naan da nga jëm émergence ak population bu mën a lire buuba ñeenti at yii passé baccalauréat téeméer boo jël ci candidat yi 65 pour cent yi dañoo lajj il chaque année 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi 30 000 emplois la ñu leen jox à travers les conditions qui sont réunies donc 270 000 yoo xam ne kenn xamul fi en fait fu ñu dugg mais xam nañ malal xam na ne ñenn ñi ñu ngi kaso ñenn ñi ñu ngi dee dans la mer Méditerranée dans le désert du Sahara ñenn ñi ñu ngi dans les djihadistes c'est de ça qu'on parle et loolu effectivement d'accord naa seeg yow Birima ce n'est pas un problème seulement avec la France mais réew moo jël day am ku lay gën a noot ñun dafa am un collectif bu ñuy noot la triade <laughs> États-Unis Union européenne Japon France am si wàll bu ama am solo mm. c'est-à-dire que intérêt yi États-Unis am ay Venezuela ay Bolivie mm. parce que historiquement noonu la France amee intérêt yu amee doole parce que historiquement mm. et ñun bu ñuy wax France dégage bu dee xëy na loolu moo la déranger en réalité. en si parce que yaa ngi naan particularisé et cetera. non non la question bi non. waaw après di wax. waaw après di wax. après di wax. waaw après di nga wax. Hmm. benn campagne bu tudd pour la souveraineté monétaire France dégage. en réalité c'est ça parce que booy wax France CFA doo wax États-Unis mënoo wax Chine je désolé. kan moo toog suñu conseil d'administration de banque loo xam ne amul fenn ci àddina bi aucun Africain ne siège. ci banque centrale union européenne ban africain mooy siège banque centrale États-Unis wala wala Chine ñun fi ñuy nasee suñu politique monétaire mm. ne kat suñu xaalis bii at ñii la ñuy def pour wàññi le chômage ñii la ñuy def pour suñu ay entrepreneur am bor bu doy pour produire yu doy am am compétitivité ndaw France di fa toog ñu naan ñun ñëpp la déedéet d'accord naa mën naa d'accord dara responsabilité partagée mais différenciée encore que man boo mu waxee ne am naa si wàll da nga may tooñ parce que loolu la lislaam wax mbir boo ci d'accordulee wax ko jëf ko wala nga naxar lu ko sa xol donc man ban wàll laa am ci lii ak ñeneen ñu mel ni man qui sont des milliers pour ne pas dire des millions mais rien que le mouridisme c'est quoi c'est un refus de l'aliénation mm. donc attention am na ay sénégalais qui pendant des siècles se battent à leur manière mm-hmm. Beydi Agne bu waxee nous voulons que l'État aime davantage son secteur privé Beydi Agne mooy de qu'est-ce que ça signifie quand Babacar Diagne conseil des entreprises du Sénégal ne ñu ne ko looy xaar ci deuxième mandat bi mu ne li xaar ci deuxième mandat bi mooy que Macky Sall ait plus de considération à l'endroit du secteur privé local ñu di la même chose que nous li ñuy wax ñun ñoom la ñuy wax ñoom avec leurs mots parce que nag on que mm-hmm. état bi il est pas républicain boo waxee France dégage wala Macky Sall dégage mais nga perte ay marché donc ils le disent avec leur mot quand des patrons yu mel ni béy di CNP ak ku xam historique gu CNP vont jusqu'à dire nous voulons que l'État aime davantage li ñuy xaar ci second mandat bi que l'État considère mais pour cent mooy mortalité wu petite et moyenne entreprise Sénégal comment tu vas régler la problématique du chômage syndicaliste nga CNTS nga nekk c'est ça la réalité 64 pour cent de taux de mortalité de nos petites et moyennes entreprises président Macky Sall mu ngi doon joytu yàggul torop ne waaw si xaw ma ay intérêt nangam dafa cher mais en réalité président Macky Sall il dit la même chose que nous mais il ne va pas jusqu'au bout c'est le système du franc CFA moo tax bor yi demee nii moo tax intérêt yi demee nii franc CFA day exercer lu ñuy woowee la répression financière dañ ko tabax pour que béykat chef d'entreprise yu Sénégal yu Afrique dañu am bor yu doy pour am capacité yu doy mais il n'a pas le courage politique d'aller jusqu'au bu ba man foofu laa xawul d'accord ak yow mm-hmm. c'est vrai que nous sommes tous des Sénégalais et des Africains mm-hmm. mais nañu nangu ne jamono njaam ñenn ci ñun dafa am ay saañaa digne ak ay saañaa indigne dafa am ay sénégalais et africains dignes ay africains indignes. mais pourtant loolu te loolu c'est général. mais est-ce que est-ce que <laughs> et ce ne pas propre aux Africains même France bi Hitler doon dugg dafa amoon un français digne et un français indigne mhm. ñu doon collaborer ak Vichy ak ñi doon résister mais xam nga ñu ñooy ñan ñun faluwuñu kenn faluñu ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo ànd di xeex ci xeex bu bëri ma jox la ñetti misaal tey jii nii lu jege junni enseignant des cases des tout petits dem nañu formation ñu ngi fayeeku parce que dañoo ànd xeex ak ñoom ñu tëj ñu ci ay yoon ki yoon le taux brut de de préscolarisation mu ngi toll à moins de 20 pour cent maanaam xale yi nga xam ne tout tànk yi war dem jàng Sénégal. 59 mm-hmm. ans après indépendance mu ngi toll ci 18 pour cent ay jàngalekat yoo xam ne ils avaient fait 5 ans dans les classes ñu diggoon leen maximum 2 ans de bénévolat maximum 2 ans ngeen dem ñu former leen après ñu fay leen payoor ñenn ñu def 5 ans de bénévolat dañ ma jàpp su ma sama premier mandat de dépôt c'était de Tambacounda cinq jours cinq jours cinq jours maison d'arrêt et de correction bu Tambacounda c'était à cause de cette manifestation tey jii au Sénégal il a mille enseignants des casiers tout petits yi dem formation dem jàngi parce que ñoom ils se sont battus et nous on a été à leur côté ñun xeeb nañ ko de mais voilà ce qu'on est Aïssatou Cissé Pikine cortège Timbo mbëkk ko tànk bi damm damatul jàng kenn faalewu ko papam bokk APR kenn faalewu ko ñun France dégage bu la neexee ñun ñoo ne eh di ngeen ko régler wala kon di ngeen ko jëfaaleeg ñun ah, régler nañ ko jox nañ ko xaalis yóbbu nañ ko première dame yóbbu na ko en fait xam ne ñun ñooy ñan ñun ñooy ñi nga xam ne bi Auchan ak Carrefour doon dugg fii amul woon benn këyit bu doon organiser la grande distribution vide juridique ñun wax Auchan dégage ak ay commerçant Auchan dégage ñu leen di jaajëfal ba président jël un décret organisant la grande distribution barki boo Ndiaye bi ngay dégg waa Kaolack deux tendances de l'APR ou de Benno Bokk Yaakaar di xuloo sëñ Mboup fii ñeneen ñi naan magasin du document bi ñu doon document bi ñu doon bi ñu doon brandir yàlla xeexu commerçant yi ak suñu xeex moo ko jur. ñu naan waaw non c'est-à-dire que entre suñu ay marché ak ñoom seen marché il doit y avoir 1000 mètres ñun sax loolu dañ ko xeeb taxul woon ñu doon xeex mais y a yi mooy y avait pas de papier. am nañ fi mu nekk nii un décret organisant la grande distribution c'est déjà une avancée xeet nañ ko loolu am na ay arrêté lii la def de leneen lépp nag xëy na waaw mën nañu ko critiquer mais nag lii mënoo ko miin te lii ay misaal rek la mënoon naa continuer en fait di joxe ay misaal ci ñun ci lan la ñuy engagé wu donc ñun lii moo ñu tax a jóg fi may daanele mooy ab lay Der aliénation bi toll na foo xam ne mooy li maam Cheikh Anta Diop doon wax la vérité sonne blanche dafa ne aliénation bi xóot na xóot boo xam ne la vérité sonne blanche maanaam dëgg dafa weex tàll tubaab la. Hmm. moo tax pour nga bokk foog nga dugg Auchan pour nga bokk foog sa jabar dem wu si ni France wala États-Unis am double nationalité pour nga bokk il faut téeméer boo jël ci suñu jigéen ñi juróom fukk ak ñaar juróom-ñaar fukk ak ñaar yi di xeesal. parce qu'il faut ressembler au blanc c'est le blanc qui vrai lépp mais bu jubee réew moo xam ne ndox ñu ne tubaab. sa xaalis ñu ne tubaab sa courant ñu ne tubaab sa lépp ñu ne tubaab mais attends je veux ressembler à cela quitte à ce que may am ay cancer on préfère manger mburu blé 91 milliards chaque année ñu koy xañ suñu béykatu mbokk ak dugub te te yi dugub sax la ñuy encourager malade yi di jël plutôt que blé bi am gluten ñuy xañ 91 milliards chaque année de blé à suñu béykat et on s'étonne di xew fële lii mooy li mais lii la vérité lii mooy la réalité lii mooy la triste la triste tragédie et le triste drame mm. nous sommes tous nag interpellés mais bokkuñu ses responsabilités de mm. du ma ko nangu mënuñu ko nangu oui alors Birima une minute et puis